Euh, dama xamul ñii ku ñu yeb parce que liñ doon dénoncé y a mois. trois mois parce que sori y a trois mois liñ doon dénoncé moom la ñuy jéem a appliqué nii am ñu faroon ci ñoom doon def lu gën a garaaw dara fekku leen ci. premier ministre bi taxaw na ne nañ génne Macky Sall jël jaasi di ko ay morso nañ defe woon Samuel Doe ak yeneen ñu gën a. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp quoi di ziar ñëpp euh, di wax ak Babacar Fall Babacar Fall yow dama la bëggoon laaj nga wax ma. yow journaliste nga wala yow opposant nga quoi politicien encagoulé nga loolu laa bëggoon xam parce que yow tu n'as rien d'un journaliste yow déjà benn yow sa làmmiñ setut yow say wax kenn xamul lan la ah yow bu dee journaliste nga presse écrite nga waroon dem te sa journaliste sax lu ñu war a seetaat la yow xam nga bu yan nga kuñ fay muy wax on dirait Babacar Fall yow da nga réew indiscipliné yow sa parce que tu te permets en tant que le président de la république et le premier ministre nga naan ay ñii ku ñu yàpp seen wax yi xamadi yooyu ñii ku ñu yàpp yow la ñu war a laaj yow koo yàpp yow sénégalais yi nga yàpp yow da nga réew RFM yaa fa gën a réew discipline yow kenn le journaliste parce que sa xol musul féex du Tu yow kañ la xam kañ kañ la sa xol di Babacar Fall yow lan nga kan nga yow indiscipline gi nek ci yow mo jaxal nit ñi quoi Babacar Fall rew nga xamadi nga mun nga fen yow nga ni le président Ousmane Sonko mo fi taxaw mu ne dañu wara japp président Macky Sall dagate ko comme Samuel Do yow ya mun a fen Babacar Fall am len kersa ci seen bop quoi ta xam seen vidéo yi day dess ba ila yow mi diini da ngay ni am jabot ëllëg ñu tek tek dara naan papa mo fi fenon fenoo toy wi yen pourquoi ngeen yakane da ngay wara nek ci dëkk bi ah lu leen neex wax lu leen neex def dara du leen ci fekk Babacar Fall loolu abaana gasi jeex na boo fi waxee yow mii di défendre xaw ma koy défendre yéen a xam boo fi waxee lu waxawut ñu noq la ci kaso bi Babacar Fall sa réewande gii nii xoolal day jeex yow RFM yaa fa gën réew amoo discipline xamadi nga booy wax mel ne bon xol comme genre Aïssatou Diop Fall yooyu ay mais arrêté waa yow Babacar Fall yow lañuy ñuy laaj koo yàpp yow ya rew mais tu vas voir avec le temps nañ dem ba ci kanam bo fi waxee waxul ñu noq ci kasso bi je te le dis et je le répète. ta da nga paré pour opposer wu quoi non hein? nañ ci dem mais il faut être endurant parce que di nga opposé wu plus de 20 ans te man maa la ko wax waaw ndax rew mom tàbbi ci loxo yo xam ne nii fii ans du ci génn. sama gars yi je ngeen def maa leen di ziar ci ji Fall Babacar Fall amal respect Babacar Fall amal respect man personnellement man je ne parle pas aux autres patriotes man sama wàllu bopp waxal ku respecter son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Fay, je te respecte ku respecter le premier ministre Ousmane Sonko je te respecte Pour respecter le gouvernement sénégalais je te respecte pour respecter administration sénégalaise pas ceux qui ont été pourris jusqu'à la moelle moi, ils de ñi nga xamante nit ñu juste lañ ñooñu laay wax ku leen respecté ma respecte la parce que moi, je suis un homme de principe je respecte tout le monde mais le respect est réciproque Babacar Fall bu fekkee ni yow ci duul naa liste yi nga bokk nga wax mais war nga toog naan ñii yeb Avec arrogance war nga wax loolu Babacar Fall journaliste na ku ci wax lo warul wax dañ lay wo tek la ci yoon ku def lo warul def dañ lay wo tek la ci yoon man fi ma nekk di liggéey bu la defee lu warul wax wala ma def lu warul def dañ may wo tek ma ci yoon amul exception seen dictature bobu ngeen bëgg installer fi dans ce pays là avec ce nouveau régime là ça ne passera pas bu len sonal sen bop, ça ne passera pas Limay wax rek mu neex len. Sénégal day Sénégal day certaines personnes Avec certains idiots Avec certains naaféq yi nga ne ñoo pas ci on leur fera face ne vous inquiétez même pas on vous fera face mu on vous fera face mu on vous fera face donc nous Nous personnellement

Sénégal ngay gis presse bi waroon def liggéeyam temps yi jël doomu sénégalais yi di rey benn par benn di leen maltraité di leen dugal ci kaso yi di leen maltraité di leen torturé déggoo benn presse bu ci wax ñëpp xam nañ yan presse ñoo ci doon wax te ay yu Naby Vision presse yi nga xamante ne ñoom la ñu gënoon xam Sénégal kenn déggu leen ñëpp dañ ne patt noppi pour leur privilège pour leur bien-être parce que lu tax dañ leen na dañ leen juste digoon lempo ñàkk fayum lempo ñoom ñëpp ñu ne pat ñuy rey doomu sénégalais yi benn par benn déggoo kenn wax ci tey ñu ñëw fa ñàq fayum lempo bi nga xamante ne moom lañ leen promettre woon ki fi jóge moom la leen promettre woon ki fi ñëw xool xam ne carrément boo nekkee société ci Sénégal ak dëkk boo munte nekk danga war a fay lempo ñu commencé di ubbi seen gémmiñ di ubbi seen gémmiñ di wax di yàq di diffamer doole ñu may ngir yàlla jàmm te xam ne pour le bien du Sénégal ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo xeexoon ba tey jii Sénégal changé duñ leen mës a bàyyi ngeen di yàq mi parce que xam nañ ne du intérêt peuple sénégal moo leen tax a jóg mais pour vos propres intérêts seeni privilège Naby Vision seen toog muy dox bi nga xamante ne moom ngeen xam ne moom moo fi nekkoon te nekkatu fi moom moo tax ngeen di génn di ngawti ngawti di wax ndax ba wax waree waxoo leen biñ ñi rey doomu sénégalais yi waxoo leen parce que ñooñu ñoruñu leen li leen ñor mooy milliards yi ngeen sàcc foncier sénégalais bi ngeen sàcc ak yeneen ak yeneen ak ñaq fay impôt bi loolu yëpp nag dafay jeex di ngeen ñu may jàmm te ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo xeexoon ba noonu am changement boobu am duñ leen bàyyi mukk ngeen koy yàq gouvernement bi fi nekk sax bu bu bu ko narul woon def sax bu narul woon xeex loolu ñun ñooy xeex gouvernement bi xeex leen yéen parce que ñu leen gënoon a dëgër gën leen mën nekk kacapan ñoom ñoo fi nekkoon ñu jëlee leen fi donc yéen mënoo leen ñëwtal delloo leen seen xel ci yàlla te xam ne dara jaru ko fi da ngeen di dee suba bàyyi fi lépp ndax moomoo leen ko déjà daal day am lu mu moom sax dee bàyyi ko fi keneen jël donc loo leen moomul bàyyi leen ko ngir yàlla te delloo ko ci njëkk ak teraanga balaa muy gën di ñaaw. dégg nañ ko barki démb li président Ousmane ko wax li ngeen guuxoon di ngeen ko gokki parce que moomoo leen ko moomu leen ko. alalu jambour là. donc mënoo leen xex xex xex xex xeex ba ñu bàyyi Naby Vision sénégalais là la. chandou Thiandoum nga ne tout ça offensé quoi si Sonko lu mu ne compte bu me rendre politiciens yi ak euh, comment dirais-je journalistes mais ça c'est un message ça c'est un message très fort parce que yéen les journalistes vous avez perdu de votre crédibilité amulen ben crédibilité tu vois te bu ñu interroger histoire vous n'avez jamais été du côté de Ousmane Sonko. tu vois Ousmane Sonko lu mu bëgg wax foofu mooy maanaam tey jii journaliste yi ko te doo leen ko jël en otage di ko chanté loo comme nii peuple bee tax mais pas yéen ñuy toog defe ne boo leen jeewoo titre diaboliser ma daan tax ma ñàkk déedéet parce que doon ngeen ma diaboliser terewul ma nekk président donc man mënutu leen ma tiital diaboliser ngeen def ngeen lu ne ma nekk président donc su ma ñëwaatee pour faal leen dama neex ak Ousmane Sonko waxee parce que ñun tey ñu daan accompagner activistes la scientifique ak yenn guerrier yi booy nekk ci net beeg yooyu noonu ay moolaa moo gën bu nee bañ saa njóogu dàq leen analyser gën leen franc mais bu neen seen seen métier parce que vous n'informiez plus juste et vrai mais seen seen poste ngeen doon défendre politiciens yi tamit amul lu wax ak ñoom parce que ay Barthélemy Khalifa ñooñu ñooñu ko coup d'état trahi ko ak législatif yi après mu def leen maire ñooñu bu fekkee y a des exceptions mais les journalistes journalistes journal yoo xam ne tey def nañ rôle mais bon l'Afrique est pauvre tous les Africains ne sont pas pauvres Youssou Ndour pauvreul Cheikh Amad pauvre mais la majeure partie sont pauvres la majeure partie des gens euh, la majeure partie de l'Afrique est pauvre donc boo nee des journalistes c'est des vendus donc du ñep mais ils se prennent ñu c'est des vendus. presse Sénégal boo leen dee seetlu bu baax a baax a baax da ngay dem ba mu yàgg xam ne daanaka ay yàbbiti guro lañ ne ñu ci bari ci ñoom gëmuñu dara seen bopp dong lañuy jaamu amul keneen man damay seetlu diggante ñeenti fan yële ak diggante démb ak tey débat bi nga xam ne moom la ñuy débat ci presse Sénégal ñeenti fan yële weesu boo xoolee presse bi da daan xaañ daanaka dem sax bay fabriquer ay information ngir rek maanaam teg pression nguur gi fi nekk. Naby te ñëpp xam nañ lan mooy lan mooy deal bi daal lan mooy affaire bi mais diggante démb ak tey. bi mu leen leeree ni 41 milliards yi nga xam ni moom la leen dafa waxoon ni baal na leen ko ndeke affaire yi mujjita mujjita jàll ndafa da doon wax noonu rek gis nga daa mel ni lépp loo xam ne wax nañ koy rek débat bu ñu sumb rek fawuñu laal ci 41 milliards yooyu naka la ñuy jàppale presse bi ak yit 41 milliards yooyu lu tax ndafa deful nangam nan la ñuy fexe ba jaay leen ko am na ñoo xam ne sax dem nañ bay commencé di ba président Bassirou jaxaar Diakhar Faye am ñoo xam ni ñu ngi baab sax premier ministre Seydina Ousmane Sonko. yéen ñi seetlu baax bu baax yéen a ngi koy seetlu. maanaam 41 milliards yi ak nan la ñuy jàppalee presse Sénégal dafa saf sàpp ci seen débat yi yow mi ko yëgul woon sax force danga ko yëg loolu daf lay wan ñoom foo gi ñu foo lay wax ne ay yàbbitu gura lañ lépp lu ñu def ñoo ko tey ñoo ko tey ba teyaatoo bu ñu bëggee jàllale information bu leen intéressé te ñu xam seen intérêt mi ngi ci noo man di def danañ ko jàllale ba askan wépp yëg ko waaye bu fekkee loo xam ni seen intérêt nekku ci rawatina maanaam ñoo xamante ne dañuy jaamu seen bakkan rek lu leen neex la ñuy def jaral na leen wax lu dul dëgg jaral na leen fabriquer diaboliser presse Sénégal ñett la. Naby Vision ñoo fi nekk jàppal bu baax a baax li ma lay wax dafa am ñoo xam ne dafa am ñoo xam ne. seen bopp rek moo leen ñor loolu nag mooy ña ëpp ci ñoom seen bakkan bii la ñuy jaamu bu xaalis teewee wala seen intérêt bopp teewee sañ nañoo sacrifier askan wi ndax information bi wér na wala wérut seen yoon newu ci yàlla xam na ko am na ci ñoo xamante si ni ñoom ay politiciens yu déguisé lañ dañoo làqatu ñoom comme par exemple nguur gi fi nekk duñ leen mës a bëgg gis nga bu président yi laloon suufu Sénégal or ba mu jeex. teewul dana am ci presse bi ñoo xamante ni tey dañuy bañ dañuy xaxar dañuy saaga dañuy contre parce que ñoom ay politiciens déguisé lañ. ñeneen ñi ci des nag ñooy ñi ci gën a néew mooy ñi nga xam ne ñoom journaliste bu wér a wér a wér lañu li ñu tuddee éthique ak déontologie moo nekk ci ñoom ñoom dëgg la ñuy wër faale wu ñu jomaay dunduñu sonko xamuñu kuy makki ñoom information bu leer naññ bu wér la ñuy wër. askan wi moo leen tax a jóg ñooñu nag ñu néew a néew a lañ bu fekkoon presse bi téeméer lañ mën nga la wax ni juróom lañ ci ñu néew lañ sax dafa jot nag yeewu nañ nga Sénégal ci presse ci presse bi ni muy doxalee mais dafa jot mu ñu gën a yeewu xam leen bu baax a baax parce que ñu bari ci ñoom seen bakkan bi rek lañuy jàmm ak seen poche ak seen biir waaye askan wi xaaju leen ba di leen président buy bali soixante 1960 ba léegi man mosuma ko fii gis. <laughs> di ngeen payi bu faal maanaam nee na président buy bale mbett waxoon na ci sañse président bi ay complexe lañ yoo xamante ni temps bi da fi dépassé Sénégal bëri ñu bëri ñoo xamante ni yàlla xam nañu ñu ils n'ont rien compris xamuñu ni àdduna dafa soppeeku xamuñu ni jamono dafa soppeeku politique dafa soppeeku. façon bi ñu defé politique dafa soppeeku sen façon doori daan am ci politique dafa soppeeku. il n'a rien compris balaa ñuy comprendre d'ici deux ans après ci lay réalité bi vraiment di sogo ñëwé Sénégal politique dafa wëlbatiku gis ngeen fan Serigne Mbacké Ndiaye mi ngi doon wax ñoom Farba Senghor ay gaay yooyu noonu manam c'est fini. gis naa keroog père Babacar gay yooyu genn di wax ancien père ñooñu c'est fini il faut ñu xamni gis nga révolution bi am ci musique am ci rap bi mooy am ci politique mënuñ ci dara sen yini xewina qui complexe yi y ci ñom deñ na ci façon gu y a des yep yoy deñ na ba pare ñi dañ choses. qui sont organisées. Il y dara choses bi fi organiser clean day clean day photo Il y muy bale qui ak sénégalais def ci journée mais choses man j'ai fait la Gambie Gambien yi sont fi ak sénégalais nek Gambie xam Gambie depuis Yaya premier dimanche xawma dimanche bi mujju ci wèr bi set setal dem gambi buñu def set setal set dëkk bi depuis yaay jambe ba légui amul ku ñëmé ubi manam boutique du ubi kenn du ubi réew mi par force la dafa dem ba bokk sen vie dañuy génn set setal auto yi jallu ñu génné mbalé bi depuis des années depuis jamono yaay jambe ba légui Rwanda ñëpp gis nañ Paul Kagame même chose def set setal bi dafa am périodiquement moo sen dëkk bi bok ci dëkk yi gëna set en Afrique mais bii nii boo gisee nit ñi war a génn sax bii boo gisee nit ñi war a génn temps bi nga xam te nguur yi bañ faloog léegi li ñu war a def ci curage taw beeg yooyu maanaam mënuñu def lépp loolu sax le président bi wax mënuguñ def lépp ci temps bi nii temps bi leen faleeg léegi moo tax suba sénégalais surtout côté yi inondé ñi nga xam te dañ fa dëkk côté nga xam da ngay inondé ñu xam ne fii la inondation bi am ñëpp a war a génn liggéey curé maanaam fi nga xam te fi ndox mi di aw. Naby Vision gars professionnels yi ànd ak population bi ñu génn def ko armee bi police gendarmerie y'a même des préfets yu def communiqué pour nit ñi génn Sénégalais dañ koy def defal ko seen bopp nettoyer seen dëkk population bu ñu jógee lu ñu song daan ko. cureel seen bopp benn fan dëkk bi set bu tawee ndox mi àndandoo dem ñu continuer lii lu war a continuer la périodiquement dafa war a continuer ñu koy def. donc mu nekk lu am solo loo xam ne Sénégal ànd ci dem complexe yi génn di wax seen waxu caaxaan yi nii. donc j'en profite pour appeler tous les sénégalais surtout côté yi nga xam da Fay da am ta population bi jeunesse bi nañu faire liggéeyal sen bop andak ak armée bi gaay ñoo auto yi des gaay ko toute une journée week la a waru sax samedi dafa vendredi samedi dimanche. population bi génn and def liggéey bu mucc et qui périodiquement lu war di def